Chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la 7 TV dans votre émission Avocat, l'émission qui traite les questions juridiques, les cas, mais aussi l'actualité de manière générale. di profité un peu ci li nga xam ne mooy occasion bi pour vraiment ndokkale les Sénégalais ci Korité bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu génn di leen wax déwéniti leen bu baax a baax lépp li nga xam ne ñaan nañ ko ci li nga xam ne mooy mois de Ramadan bi yàlla yàlla nangu ko. tey bi nga xam ne monsieur Tahirou Sarr def nag tole fii ci Sénégal mais aussi ci bitim réew peut-être il a été mal compris mais ñi nga xam ne moom la ñuy wax ñun aussi fi nga xam ne moom la ñuy demee maanaam est-ce que c'est important dans un contexte boo xam ne le Sénégal a besoin de ses frères maliens a besoin de ses frères guinéens a besoin de l'intégration sous-régionale pour son développement économique et social est-ce que soxla nañu actuellement ce genre de propos qui peut diviser li nga xam ne mooy les Africains ñu ci dalal ki nga xam ne mooy Cheikh Bamba fal nekk consultant expert international ci wàllu migration mais tamit nekk président village migrant Cheikh Bamba ñu ngi lay nuyu Actu maa ngi lay fay euh, Amadou euh, di la nuyu di nuyu mboolem seen téléspectateur yi nga xam ne ñoo suivre la 7TV. Mm-hmm. di profité ci occasion bi di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla mu nangul suñu koor. Mm-hmm. Euh, defal na aussi jàmm ba lépp lu ñu sumb ñu ñu yeggale ko incha allah. amiin amiin amiin Cheikh Bamba dégg nga li nga xam ne moom laa wax léegi léegi maanaam pour camper un peu le décor ñu bëgg ñëwaat un sur l' vraiment des cartes de séjour bi nga xam ne mooy Steve Tahirou Sarr agité na ko. ci contexte bi nga xam ne moom la moom la ñu nekk duñu ñu ci compréhension bi mais mën nañ jàpp ne vraiment c'est des propos yoo xam ne mën na diviser mais aussi mën na exposer les Sénégalais qui son à aussi. Absolument. Euh, comme ni nga ko waxee d'abord euh, di ko di ko féliciter aussi par rapport ci approche bi mu indi ndax c'est un débat très intéressant mais aussi un débat très sensible euh, par rapport ak li nga xam ne ci li ñu nekk muy l'approche communautaire Euh, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. connaît euh, le Sénégal sur le plan diplomatique c'est un pays très respectueux et c'est un pays aussi euh, exemplaire en termes de traitement des relations diplomatiques géostratégiques et géopolitiques Euh, loolu aussi day tax euh, ñu ne bon il la droit à la parole parce que mën na wax li mu bëgg a wax mais la tra ne traduit pas que li mu wax effectivement loolu mooy li nga xam ne euh, moom la ñëpp war a gisee. parce que nous sommes en démocratie des opinions lu ñu koy nangul la absolument bëri na ci lu mu wax yoo xam ne aussi ànd nañ ci ak moom mais en terme d' approche xam naa ni ñu koy aborder day du doon par rapport ak moom li nga xam ne aussi moom noonu la ko indee. Euh, je rappelle que le Sénégal euh, a ratifié et signé beaucoup de conventions sur le plan international et sur le plan régional. Euh, international, je rappelle de la Convention de Genève de 1951 bi nga xam ne Sénégal ratifié ne ko signé ko euh, bi ñu jugee ci loolu signé nañ aussi li nga xam ne euh, mooy en 2006 processus de Rabat en 2014 processus de Khartoum. Euh, en 2015 les déclaration yi nga xam ne moom moo jóge ci euh, sommet euh, La Valette te moo mën au Malte en 2015 aussi ratifié nañ ko signé ko bi ñu foofu si daje nañ ci li nga xam ne mooy au Maroc Marrakech ñu gën ko xam ci ce global pact migration ñu gën ko xam ci la pacte mondial de la migration mm-hmm. ou bien pacte de Marrakech Sénégal aussi maanaam bokk na ci li nga xam ne bokk na ci ñu ko ratifié Euh, sans pour sans pour euh, aussi oublier li nga xam ne euh, mooy euh, les conventions relatives numéro 19 euh, sur l'égalité des, des, des, traitements des, des, des, tra des, travailleurs étrangers et nationaux. Euh, aussi, les, les conventions relatives par rapport, surtout numéro 138 de l'OIT, numéro 142 aussi de l'OIT. Donc, il y a euh, les indigo pour au début, c'est pour camper un débat avec des dispositifs juridiques qui nous permettre, madame, nous avons une approche de nous. Euh, comme on di souvent boo xoolee actuellement euh, dans l'échiquier mondial euh, am na benn benn genre phénomène buy jóg phénomène bi c'est quoi c'est un phénomène un peu ñu jugé ko un peu identitaire c'est-à-dire un phénomène de remplacement boo xam ne tey mi ngi ci àddina mm-hmm. boo xoolee à l'étranger y beaucoup de gens yoo xam ne li ñuy prôné mooy ok euh, benn benn benn benn approche nationaux effectivement nationalisme nationalisme voilà mm-hmm. donc yooyu yëpp aussi ñoom dañ koy dañ koy aborder mais li tax moo wax loolu euh, c'est un débat très sensible parce que euh, day tax ki nga xam ne souvent moo lay dégg moom day def ci boppam le principe de de remplacement principe de remplacement actuellement euh, dëkk yu bëri yi nga xam ne tey jii ñoo nekk à bon euh, dans l'Occident su mel ni France ay Hongrie ay Hollande dafa tàmbalee di juddu di fa am mooy dañuy jàpp ne nationaux yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo seen dëkk ñëw fi nga xam ne moom mooy ci ci ci seen réew ñooñu ñoo leen di remplacer ñooy remplacer aussi à leurs économies mais aussi s'il benn benn tension d'insécurité ou bien si tu sens euh, dans dans une insécurité que ça soit économique sociale ils pensent que étrangers yi ñëw fi ñoom ñoo leen ko teg. boo jëlee tey exemple exemple Sénégal aussi dafa xaw dafa xaw a parce que des fois sànq maa ngi koy wax il faudra ñu comprendre li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy sa pensée. mais vraiment Sénégal actuellement bu ñu xoolee le nombre d'étrangers fii bëri na bëri na trop yaa ngi rappelé aussi li nga xam ne moom mooy moom mooy les les mécanismes mécanismes juridiques moom il s'est prononcé mais est-ce que il maîtrise de ces mécanismes juridiques vraiment ci mm-hmm. l'état du Sénégal ak ñi nga xam ne dañu génn aussi di wax ci wàllu migration aussi. bon loolu nag souvent moom mooy moom mooy problème bi euh, parce que mécanisme juridique en termes de libre circulation des biens mm-hmm. boo indee le protocole de la CEDEAO rek mën na ci yem parce que c'est un protocole boo xam ne bi ñu créé créé la CEDEAO en mm-hmm. en précisément le 29 Euh, dañoo aborder li nga xam ne mooy le principe de la libre circulation des biens et des personnes ba ci loolu euh, dal di acté li nga xam ne mooy libre circulation mais ça dañ ko revisité euh, li nga xam ne mooy en 29 mai 1982 par rapport ak li nga xam ne mooy statut de la citoyenneté la résidence l'établissement des étrangers mm-hmm. donc nous sommes dans un espace communautaire l'espace communautaire s'appelle la CEDEAO. Mhm. à travers la CEDEAO on a l'UEMOA on a GLECAF et cetera yooyu yëpp ñun dañ ciy participer mhm. donc il faut ñu jéem a dépassionnaliser li nga xam ne mooy le débat parce que la diplomatie n'est pas du populisme. Mhm. la diplomatie euh, n'est pas du tâtonnement c'est-à-dire la diplomatie science la boo xam ne c'est pour mieux gérer euh, la la les relations entre les États. donc la diplomatie ku ciy wax war nga am xaw tuuti benn maitrise bi par rapport au texte yi nga xam ne moom la dëkk bi ratifié par rapport aussi à l' approche yi nga xam ne au fait moom nga war a am. parce que dafay exposer aussi les Sénégalais de l'extérieur merci aussi. beaucoup je, je je pense que euh, en Europe. Mm -hmm. y a ce qu'on appelle les de tension. Mm-hmm. axe bi mu ñëwee moom moom c' est axe purement économique peut-être mm-hmm. mais je parle de l' économie et en Europe il y a ce qu'on appelle les métiers de tension les métiers de tension boo ko déggee mooy métiers yi nga xam ne ñi nga xam ne souvent ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy occupé ce sont des nations ce ne sont pas des nationaux mais des étrangers ce sont des métiers très pénibles je prends l'exemple de l'Espagne boo fa demee ñi nekk ci tool yi loolu rarement nga gis fee un national un espagnol bu fa nekk excepté ki nga xam ne moom mooy borom tool bi ce sont les loolu ce sont des métiers yoo xam ne souvent suñu étudiants yi ñoo koy def ak ñenn ñi noonu la amee fi nga xam ne aussi mooy au Sénégal y a des métiers yoo xam ne euh, souvent Sénégal dafa am ñoo xam dañ ko catalogué ñooñu nag ci mel ni euh, quand je prends l' exemple euh, des des des Guinéens yi nga xam ne ñu ngi fii ñooñu dañoo dañoo occuper benn filière mais une filière maanaam très visible visibilité filière boobu da ngay jàpp ne ñoom ñoo occupé économie bi fekk te filière bi la ñu économie la occupé mhm. je prends l' boo génnee ci bitig bi sa kër di dem bitig jàll bitig nga fay fekk mhm. boo génnee sa kër yi dem këriñ jëndi këriñ jàll këriñ nga fay fekk boo demee ci mat ñoo ko nag ni ngi leen fay fekkee da ngay jàpp ne ñoom effectivement ñoom ñoo occupé li nga xam ne mooy économie te fekk demeewul noonu donc la visibilité des filières yi nga xam ne ñoom la ñu occupé day tax nit ñi jàpp loolu fekk te c'est c'est c'est diamétralement opposé. xam ne ñoom dañ cee dañ cee nekk mais comme ni nga xam am benn différence entre occuper l'économie. merci beaucoup merci beaucoup donc donc donc donc loolu c'est très clair euh, l'autre chose mooy ça peut ça peut maanaam indi mën na indi benn mal entre no pays voisins c'est-à-dire nous sommes dans l'espace communautaire de la CEDEAO on est la CEDEAO on parle de la de la citoyenneté de la CEDEAO du citoyen de la CEDEAO e e e ki nga xam ni Guinée la dëkk mm-hmm. ki nga xam ni Mali la dëkk Sénégal Nigeria et cetera amul ñoom ñëpp tey ñoo yem ci benn dëkk maintenant li leen fay différencier mooy subaat kii day am nationalité kii du am nationalité am na droit yoo xam ne euh, permettre nañ ko ki ci am nationalité waaye ki nga xam ne am fa nationalité maanaam carte de séjour la fa am kooku aussi permettre duñu ko yaa ngi wax ci libre circulation dogguma la Cheikh euh, Bamba Fall maintenant tey libre circulation ni nga ko waxee ce des dispositions yi nga xam ne c'est communautaire maintenant au niveau au niveau national est-ce que mënuñu corser un peu li nga xam ne moom mooy c'est c'est boo xoolee Sénégal ak stabilité bi nga xam ne moom moo fi am donc ñëpp dañuy daw di risque li nga xam ne moom mooy moom mooy Sénégal donc cette libre circulation elle existe mais est-ce que mënuñu ko rendre plus contraignant en fonction des États absolument absolument parce que aussi il faut il faut il faut savoir que euh, en fonction des États ça dépendra ci li nga xam ne mooy les les relations et les coopérations que ça soit bilatérales et multilatérales yi nga am ak État mm-hmm. li ma ci jubloo wax traitement bi ñu mën a am ak un Gabonais selon les accords bilatéraux li nga xam ne moom la ñu signé ak moom la. Mhm. mën na bañ a bokk ak Guinée mën na bañ a bokk ak Mali ak France États-Unis et cetera. donc ça c'est ça ça ça c'est deux. Euh, l'autre chose mooy bu ñu jëmee ci li nga xam ne mooy la libre circulation certes mën nañ ko def parce que en par problème de sécurité ça nous permettra de réduire la porosité de nos frontières il faut le dire nous avons des nous nous sommes nous avons des des des frontières très poreuses. maanaam mhm. euh, maanaam passage officiel yi nga xam ne ñoo nekk nekk au niveau du Sénégal gën nañu dugg ci xaajul bay yegg wala daj dayo bi nga xam ne moom la suñu suñu suñu territoire doon ay je que ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko benn benn boroom xam-xam di waxee maanaam Sénégal dafa nekk ci position bu stratégique boo xam ne ñëpp dañuy ñëw ñëw parce que yàlla a stabilité. y a mm-hmm. gis nga récemment ay Nigérians yoo xam ne Niger lañ jugee doon ñëw Sénégal je pense xaw xam ne ñoo defoon ITV bi. Mm-hmm. Euh, bu ñu ñëwee yalwaan la ñuy liggéey parce que xam ne ne le Sénégalais est très généreux bu ñu xëyee day kii donc ñoom euh, cycle d'économie la. Mm-hmm. maintenant il faut ñu ñu xalaat naka la ñuy tëjee barricade suñu ay frontières. certes nag nous sommes dans un espace boo xam ne euh, maanaam on a des frontières géographiques mais il y a des frontières yoo xam ne ñun munuñu ci xuus lu bari li tax doo ci mën a parce que tey jii tu vois un sénégalais qui a euh, une mm-hmm. tey boo demee ci frontière bi da ngay rax añee Mali raxasoo Sénégal yaa ngi dégg mm-hmm. ndekkee ndekkee Guinée ñëw naanee ndox Sénégal donc loolu finalement dafa am benn brassage boo xam ne daf ci am sur le plan familial te loolu il faut aussi ñu koy ñu koy bàyyi. il ñu koy il faut ñu koy bàyyi. mais ngir ñu mën ci indi apporter des solutions. c' est rien d' que euh, maanaam renforcer la surveillance sur les côtes fexe ba nit ñi nga xam dañuy dugg un ñu am identité bi. deuxièmement ñu recenser leen. quand on n'a pas quand on n'a pas euh, dans une stratégie euh, de lutte contre une migration irrégulière maanaam li ci. l'inf la maanaam euh, base capital bi mooy l'information il faut il faut avoir les informations sur le recensement nit kuy dugg nga xam ne dugg na frontière bii la duggee diw la tudd fii la dëkk certes mi ngi ci espace CEDEAO bi wala bokk ci. Mhm. waaye moom séjour am lii ak lii ak lii. carte de séjour est ce que du nekk benn outil benn moyen pour def recensement boobu bi ngay wax parce que y' a encore y' a des enjeux sécuritaires. Mhm. donc y' a d' autres enjeux tey jii nii il faudra ñu mën a recenser xam identifier les personnes qui sont au Sénégal maintenant carte de séjour bi c' est vrai que pour recenser. exactement les les étrangers qui sont là parce qu'il y a des enjeux aussi sécuritaires. absolument mm -hmm. absolument moo tax man la je suis entièrement en phase avec lui par rapport à ça c'est-à-dire que après procédure mooy li nga xam ne tey jii nit ku jóge ci dëkk di ñëw ci dëkk di nga fa am titre de séjour bu wone ne yow kat diw nga tudd. dëkk bii nga bawoo bi sàngam nga dugg Sénégal am nga fi droit lii ak lii ak lii. te laalewul ak dara ak libre circulation te laalewul ak dara ak libre circulation. parce que loolu c' est un problème sécuritaire. donc man je suis entièrement en face du état bi des cartes de séjour. yoo xam ne képp koo xam ne ci toit de la CEDEAO ak foo mën a nekk da ngay ñëw daal di dugg ci li nga xam ne euh, moom mooy moom mooy moom moo ci dëkk bi ngir ñu mën la cartographie cela nous permet aussi. boo dégager sa axe concernant la politique migratoire nga mën a xam effectivement. bon euh, ban population ban peuple moo ëpp ci sama dëkk di nga ko mën a xam en terme de géopolitique en terme de géostratégique et de diplomatique ñi nga xam ne ñoo ëpp ci sa dëkk te nekk ci yeneeni réew ba woo fa ñëw ci sa Sénégal mhm. nga xam ne yoon coopération ngay am ci diggante ak ñoom seen pays d'origine mhm. mais li ma ci li ma li ma ciy wax sànq ci sama régionnement te te yeggali yu ma ko woon mhm. mooy si maintenant on tourne la pièce de la monnaie et ñu xool traitement bi nga xam ne moom la ñu am approche bi ñu jël buñ ko defoon suñu doomu sénégalais yi nga xam ne actuellement ñu soxla ñu ngi bitim réew je tenais à préciser bi nga xam ne génn na récemment doon wax sur les les envois ou bien les remises migratoires vers les pays d'origine daanaka lu jëm ci 2023 bi dafa am benn hausse de 3,8 pour cent et ci 3,8 pour cent yooyu mën nañ ko évaluer en Afrique subsaharienne il y a 1,9 pour cent en termes d'hausse loolu li tax indi mooy c'est-à-dire les sénégalais les africains subsahariens yi nga xam ne ñu ngi fa ils sont un peu résilients par rapport à aux yi nga xam ne ñoo am au niveau au niveau mondial. Mm-hmm. boo jëlee lu ci mel ni Sénégal Sénégal. Euh, Afrique yëpp sax laay wax ne ñu ngi dugal en 2023 ci l'apport de la diaspora lu toll ci 54 milliards de dollars. moom la ñu dugal. les Sénégalais le Sénégal ñun bu ñu ko xaymaa ñu ngi toll ci 1400 milliards francs CFA moom la diaspora sénégalaise dugal fi nga xam ne moom mooy Sénégal. maintenant xaalis boobu nga xam ne ñu ngi koy dugal mais ci ay dëkk lañ koy jël le Sénégal c'est un pays migratoire. c'est un pays migratoire. Mm-hmm. boo nee Sénégal c'est un de destination et de transit. Mhm. donc ñett yi nga xam ne Sénégal da koy boole moo tax moom benn statut spécial boo xam ne il faut ñu xool naka la ñuy naka la ñuy naka la ñuy aborder. naka la ñuy aborder affaire bi tey jii nii est-ce que mënuñu vraiment reposer li nga xam ne moom mooy moom mooy le débat monsieur Tahirou Sarr wax na ci li nga xam ne moom mooy les de séjour pour les Africains qui viennent ici mais tey jii est-ce que waruñu waraat. reposer le débat cest par rapport à la réciprocité maanaam les états yi nga xam ne vraiment les sénégalais bu ñu fay dem il faut ñu laajte visa c'est très compliqué pour ñu dem fa mais ñoom pour ñu bëggee dugg Sénégal dañuy dugg Sénégal de manière libre tey ji est-ce que du question bi foofu la waroon foofu la waroon gën a mën a nekk. oui la réciprocité mais c'est un peu du noonu. certes bon ku nekk da ngay bëgg appliquer le principe de la réciprocité su dem fee damay ñaan diw bu ñëw fii na na ñaan visa c' est vrai loolu la ñëpp di bëgg mais loolu étape la pour l' instant nii euh, je pense que mun nañuy corser ndànk-ndànk parce que appliquer le principe de la réciprocité concernant aux entrées dafa am ay étapes ay échelons yu muy laaj il faut d' abord nga maîtriser euh, maanaam say données économiques par rapport euh, aux pesanteurs de l' étranger c' est à dire étranger yi fii ñëw lan la ñu indi ci suñu nga soo ko xam su ko defee di nga xam ne ngir kat ñoom ñu bañ a dugg ci ban impact lay am loolu il faut nga savoir que sur le plan économique xam nga sur le plan économique deuxièmement nga nga nga maîtriser aussi li nga xam ne moom mooy say frontières ça te permettra nga mën a indi loolu mais c'est vrai que mën nañ tendre vers l'application d'une réciprocité par rapport au, non seulement au, au principe de visa et cetera parce que il faut savoir que l'immigration irrégulière bi ñuy wax te gone yi di dugg ci géej gi eh, bokk na li ko gën a indi ce sont les causes diplomatiques c'est le durcissement de l'obtention des visas parce que voilà bëggoon ñëw parce que immigration clandestine bi aussi irrégulière bi mën nañ jàpp ne vraiment juurte li nga xam ne mooy visa bi maanaam pour am visa pour voyager ni mu méttee loolu tamit dafay augmenter li nga xam ne mooy l'immigration irrégulière de jeunes africains des jeunes sénégalais aussi. absolument absolument donc loolu loolu loolu mooy bokk na ci principe parce que ñi nga xam dañuy jóg di ñaani visa bu fekkee ne dem nañ naa ne visa mais malheureusement mayu ñu leen visa. Euh, ñoom dañuy xool rek la voie la plus facile et la plus accessible. Mm, pour contourner pour contourner continuer li nga xam ne mooy les maillages. Mm-hmm. donc loolu bokk na ci nga xam ne mais appliquer le principe de la réciprocité li ma la ko waxee échelon la. Mm-hmm. maanaam bu njëkkaan daan nañ dem ay Italie France te amuloon visa. parce que ils avaient besoin des étrangers yoo xam dañuy ñëw ngir mën a développer seen dëkk vous voyez mhm. mais Sénégal mun nañ ko mun nañ ko togg di ko liggéey ba fii ak quelques années ñu mën ko teg de façon de façon parce que il faut le dire ah la diplomatie n'est pas du tâtonnement mon cher mhm. la diplomatie du du tëdd sa néeg maanaam mu ñëw sa xel la nga defal ko mhm. lépp loo gis c'est calculé la diplomatie peut être comparée comme de la mathématique. la ay réalité la yoo xam ne da koy rencontrer sur li nga xam ne mooy moo mooy ci terrain bi. Mm-hmm. moo tax ma wax ne. maintenant quelle est la solution par rapport à ça. surtout surtout loolu parce que yaa ngi koy yaa ngi koy wax léegi léegi il faut ñu il dem ci parce que yaa ngi wax ci réciprocité bi c'est pas quelque chose boo xam ne dafa ñëw du jour au lendemain on a aussi benn intégration. régional sous sous sous sous régional tey ji nii nga nekk un membre de de Pastef nga nekk expert ci wàllum immigration ci wàllum ci wàllum demalante ak ñëw tey ji bu ñu waxee politique migra migratoire parce que je pense que ci loolu la ñu a dem ban politique migratoire la ñu war a mën a teg pour un état comme Sénégal parce que encore on a un statut particulier tey ji politique bi sa va être très très important ci wàllum diplomatie ci wàllum vraiment nit ñu nit ñuy gisee bon effet effet effectivement comme comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, certes nag <laughs> invité wu en tant que. membre euh, cadre membre de Pastef. c'est vrai invité en tant que un expert euh, à la matière surtout domaine de de la migration. La mais mhm. euh, gouvernement bi nga xam ne moo ñëw à travers le président Bassirou Diomaye Faye dafa am une approche holistique par rapport ak li nga xam ne mooy la gestion du flux migratoire. plus particulièrement l'intégration africaine et la gestion d'une relation diplomatique, géostratégique et géopolitique. Euh, loolu boo ko déggee mooy li nga xam ne moom la njëkk indi mooy étalage ministère bi nga xam ne ni mu tuddoon auparavant on avait le MAES ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur mhm. actuellement on a le MIAE c'est quoi ministère des de l'intégration africaine et des affaires étrangères. gis nañu changement de nomination merci beaucoup li tax loolu. Mhm. mooy ci suñu programme. Euh, PASTEF président euh, Diomaye président programme bi boo xoolee vision bi fi ñu ko fi ñu ko casé. Mhm. mooy un Sénégal juste souverain et prospère dans une Afrique en progrès ça traduit que lépp loo xam dañ koy teg comme acte gouvernemental non seulement c'est le Sénégal d'abord. mais qui tend vers une ouverture africaine et internationale loolu moo tax bi ñu indee ñu ni ministère de l'intégration africaine mhm. parce que xam nañ la position du Sénégal dans l'Afrique xam nañ la position du Sénégal euh, dans le monde mais plus particulièrement dans l'Afrique Afrique Sénégal moo moo moo war a diriger lead bi indi l'Union africaine je rappelle que le professeur Cheikh Anta Diop dans son dans son livre dans son économique Euh, et culturelle d'un État fédéral d'Afrique noire, il parlait, de beaucoup, il parlait bokk de l'intégration africaine. je pense que mm-hmm. ce gouvernement, avec le président Diomaye Faye, le président Ousmane Sonko, euh, boo xoolee sax parti bi voilà parti boo xam ne yàlla moo africanité c'est-à-dire yemuñu rek Sénégal mais nag Sénégal rek la ñuy déparé mm-hmm. jëm ci li nga xam ne mooy à l'étranger maintenant ñu li ñu indi euh, par rapport. ci wàllum euh, politique migratoire ci wàllum d' abord est c' est appliqué li nga xam ne mooy le document de la politique nationale de la migration au Sénégal. Mm-hmm. j'ai eu la chance participer ci. Mm-hmm. c' était en 2018 avec le ministère du plan et les langues et etc. mais ça a été validé techniquement. mais ça n'a pas été adopté politiquement je pense que le 3 novembre dernier moom la ko le PM Amadou Ba daal di adopté. donc adopté donc ci document boobu dañ ko sende ci quatre DAS mooy domaine d' activité stratégique ak 11 axes mais document boobu ça a été sanctionné aussi. par ce na appelle la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière bokkoon naa ci expert ak ñi nga xam ne toog nañ mhm. ngir ñu xalaat ci bind surtout gestion des frontières et la prévention mën ñëw rapidement sur les tenants et mhm. euh, li ci njëkk rek moo ñu valider euh, moo ñu appliquer document bi parce que c'est un très bon document boo xam ne mu ngi fi mhm. axé ko sur cinq axes benn bi mooy sur la prévention boo déggee la prévention mooy mettre un cadre institutionnel bu ñu mën a permettre. Mhm. Euh, ñu mën a ñu mën ñu mën di di di teg tëj suñu ay li nga xam ne moom mooy suñu ay frontières maritimes aériennes ak terrestres. Euh, beneen bi mooy accès aussi sur ce qu'on appelle euh, la gestion des frontières mooy renforcer. la gestion des frontières ba entrée ak sortie ñu am ci la mainmise mm. yokk li nga xam ne mooy les points d' accès officiels au niveau du Sénégal beneen bi mooy ñi nga xam ne mooy les mesures de répression quand on dit répression c' est le durcissement euh, des sanctions pénales yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy def Euh, lépp loo xam ne dafa jëm ci euh, trafic des des des personnes et traite des trafic des migrants et traite des personnes. ñu mën faa durcir mooy paafeer yi nga xam ne dañuy ñëw di indi maanaam gars yi di jàll ci gaal yeeg yooyu. beneen bi mooy mesure boo xam ne d' accompagnement la par rapport ak ñi nga xam ne mooy les migrants de retour. ngir bu ñu ñëwee ñoo am une politique de réintégration sociale économique psychosociale bu leen accompagner dernièrement aussi mooy ñu am benn politique d' assistance et de protection. de nos de, de migrants euh, yoo xam ne ils sont victimes peut-être de de de migrants et de nos migrants yi nga xam ne ils sont au niveau à travers nos consulaires. Mm -hmm. mais leneen aussi mooy de valoriser notre diaspora. de valoriser, valoriser notre diaspora. Mm-hmm. mooy ñu réorienter maanaam les gens avoir 1400 milliards. Mm-hmm. boo ko orienté mais dañoo gis ne bu daan ñëw souvent sur l'aspect migratoire les transferts là. da doon doon des transferts yoo xam ne c'est spécifiquement axé à la consommation maintenant on va le faire maanaam réorienter presque à l'investissement dernier point bi mooy euh, ku ne xam ne ni l'immigration irrégulière ce n'est que prolongement de l'exode rural raison pour laquelle suñu programme on a mis en place des politiques structurelles d'employabilité et économique yoo xam ne dañ ko camper dans les terroirs pour mën a retenir les jeunes dans les mmh. ngir ñu bañati nga xam ne moom mooy fii ci Ndakaaru a toog fa dëkk yeneen mmh. doon jóge ci ci ñëw ci kaw yi di ñëw ci màngaani ci yi nga xam ne moom mooy ci taax yi bu ñu fi gisatul dara finalement dañoo mën a dem donc ngir ñu mën leen a camper euh, avoir une très bonne politique migratoire maanaam fexe ba li nga xam ne mooy mbëkk mi mu xaw a jax lëkkaloo ak ñi nga xam ne tamit mooy secteur de la pêche à travers l'immatriculation des pirogues parce que ñiy dawal gaal yi génnewuñu feneen fudul ci mool yi donc ñu fexe ba amaat suñu ay géej dellusiwaat suñu loxo mool yi ñu mën leen a joxaat li ñu moom xale yi mën leen a camper dans les à travers l' agriculture l' ak euh, la pêche mhm. donc mën a dellowaat li nga xam ne moom la ñu ba pare joxaat espoir jeunes yi ñu toog ci dëkk bi te xam ne fii tekki fii aussi mën na mën na nekk je pense que c' est vraiment vraiment important c' est vraiment aussi pertinent ci wàllum axe bi nga ne moom ngeen moom ngeen jël parce que vraiment c' est la la c' est la bu ñu waxee li nga xam ne moom mooy immigration clandestine mën nañ jàpp ne am na am na am na pertinence te aussi am nañ ci espoir ci li nga xam ne ne vraiment moom mooy moom mooy cette politique là cette politique migratoire pour la jeunesse mais aussi vraiment pour le Sénégal Cheikh Bamba temps bi ñu impartiroon vraiment jeex na dafa gàtt trop trop trop mais je pense qu'on aura l'occasion une autre fois vraiment ñu gën a man a dugg ci li nga xam ne mooy programme bi nga xam ne mu nga wax parce que am na solo surtout point yi nga xam ne moom nga moom nga développé ñu ngi lay remercier bu baax. merci beaucoup remercier mboolem seen téléspectateurs yi ñu seetaan. Mhm. Euh, di wax ne voilà kontaan nañ trop. li fi génnee di njariñ yàlla na ko ñëpp bokk euh, li nga xam ne aussi euh, moom la ñu wax aussi ñuy wax ne tàll nañ loxo ñëpp parce que nous avons un nouveau gouvernement qui a besoin de tout le monde ngir mën a liggéey li nga xam ne moom leen di surtout dans l'aspect migratoire di tàll loxo les acteurs de la migration di leen wax ne politique bi nga xam ne moom la président Diomaye Faye indi c'est c'est une politique inclusive pour ñëpp mën cee participer ndax kat ba jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci waaye ñëpp liggéeyandoo ñëpp liggéeyandoo ñëpp teg ci seen nga xam ne mooy seen mooy seen loxo merci beaucoup Cheikh Bamba Fall tey moom la ñu nekkoon nekk consultant expert en immigration internationale waaye itam nekk président village migrant moom la ñu dalaloon tey waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy l'affaire vraiment bi nga xam ne moom moo suscité un peu li nga xam ne mooy la toile muy les propos tenus par ki nga ne mooy monsieur Tahirou Sarr vraiment il a été peut-être mal compris mais gis nañ ni c'est des propos yoo xam ne c'est des propos sensibles yoo xam ne vraiment mën na andi problème mën na andi division mën na andi tension mais je pense que le débat se se pose ñu ngi remercier bu baax a baax a baax remercier nos téléspectateurs di lay jox dig daje incha allah la semaine prochaine encore même chaîne même heure merci beaucoup.